voilà mi ngi noonu ñuy nuyu auditeurs u Rewmi FM yëpp ganok euh, bës bi tey ji ñu war si dalal Abdourahmane si jiite euh, kuréel euh, gi ëmb réfugié mauritanien yi nekk fii ci Sénégal Abdourahmane si maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm di la sant Koumba. voilà Abdourahmane Sy déjà tey jii mooy bës bu ñu jagleel réfugié yi ci àdduna bi tey yéen bës bi naka ngeen ko fas yéene célébrer. voilà euh, Kumba maa ngi tudd Abdourahmane Sy euh, ma yore la communication de la coordination mhm. euh, des réfugiés mauritaniens au Sénégal mhm. mooy daw làkku yi kuréel yi juróomi kuréel la ma yore seen communication seen kàddu mhm. par rapport ki li jëm ci biss bi tey bis bi ñuy jagleel comme ni nga ko waxee daw làqu àdduna yi ñu nekk ci àdduna bi yëpp. Mhm. Euh, nag dañoo fas yéene fàttali nit ñi rek euh, euh, sañu nekkin ginnaaw bi ñu génnee sañu réew en en mhm. ñëw fii Sénégal. Mhm. ñu may ñu asile fii bi ñu amee asile rek mu am ay ay war yi nga xam ne moom la état Sénégal engagé woon ba ñu jox ñu. kii eh, eh, eh, papier bi nga xam ne mooy firnde ne accepté nañu fii ci Sénégal mooy bu ñu waxee nasaraan mooy asile bi bi amee asile bi nag am na lu ko war moom boo sukkandikoo ci constitution Sénégal def ñu war a toppatoo ci ay anam yu bari ñi nga xam ne ñu ngi dem ci wàllu ak ak yelleef doomi aadama mais mun nañu constate ne euh, mun nañu xayma ne depuis lors ba léegi dund bi day gën a tar dafa gën a difficile euh, te ñi ñuy jokkool autorités yi ñuy jokkool wala euh, yeneen naataangoo autorités yi wala seen partenaire su la neexee ñi ñu war a jokkool pour que sañu dundin gën a oyof ba léegi loolu moo nekk sañu frein bi frein bi frein bi mooy que frein bi mooy que frein bi mooy que euh, fi mu ne nii mënuñu mënuñu euh, continuer di dund ci li nga xam ne mel na ñun ay bàyyi lañu lañu mënuñu toppatoo ñu am document euh, toll ñu fanweeri at ak ëpp mënuñu toppatoo ci sañu nekkin fi ñu war a dëkk ni ñu war a fajoo Euh, lépp lañu ñu dagg fii nii. Mhm. donc euh, sañu xale yi jàngatuñu. Mhm. sañu jigéen yi sonn nañu. sañu maladie yi. Mhm. amatuñ sax lu ñuy fajoo puisque ñi ko ñi ko doon toppatoo sax. Euh, waa état bi. ak ACR yëpp daanaka jéego yu ñu ci def jéego yu yu yi nga xam ne mënul doy. am na ñi nga xam ne dañu am ay feebar yi nga xam ne moom rek lañu dund. léegi nag loolu yëpp bu ñu ko xaymaa mënul nekk dund bi nga xam ne moom la ak ak yelleef doomi aadama euh, moom la ñu waroon teg sañu kanam pour que ñun ñu mën a féex ci anam yooyu mais li si dol euh, li si dol léegi aussi mooy que bu ñu mayoon sañu àq sax mm. bi nga xam ne moo gën a nekk fondamental mm. mooy euh, sañu documentation mm. mooy sañu carte d'identité numérisée biométrique bi ñu joxe nii joxe nañ ko nii ak sañu passeport bi nga xam ne Euh, titre de voyage conventionnel lañ ko tuddee. Mm. moom la ñu bloqué depuis lors ba léegi. Mm. Euh, jéem nañu def lu ne euh, ba ñu xamal nu ne. defar nañu passeport bi dolli ci signature ministre de l'intérieur rek temps boobu Aly Ngouille Ndiaye moo fi nekkoon. bi mu demee ki ko remplacer nii il fallait que ñu changer signature bi pour ñu mën a am say ci sañu titre de voyage mhm. ñun ñu mun a def sañu taaba taaba comme africain yi nekk sous région yi yëpp mhm. pour ñu mun a au moins jàppale sañu bopp balaa ñuy xaar état bi nga xam ne mënul def dara euh, jéemul def dara sax jéemul def dara mhm. ci dundinu euh, askanu euh, daw làqu mauritanien yi ak yeneen réfugiés yi nekk fi loolu moo waral ren ñu choisir maintenant vallée bi bi nga xam ne ñoom dañoo am seen seen coordinateur départementaux mm-hmm. ak délégation Dakar bi ñu ñëw célébrer ko fii à Ndioum pour que ñu mun a delluwaat ci li nga xam ne mooy dundin bi nga xam ne moom la ñu nekk fii mm-hmm. dundin bi nga xam ne dundin bu tar la euh, mënul tax nga dund euh, pour sa pour sa jaamu yàlla sax mm-hmm. li nga xam ne lool nga gëm sa jaamu yàlla sax pour nga def ko problème la ndax euh, boo amul foo dëkk boo boo feebaree bo amul loo lekk euh, sa jaamu yàlla day xaw a euh, doy waar tuuti. Mhm. bu loolu weesoo euh, état Sénégal dañu ko porter plainte ay yoon yoon yoon yoon yoon. ndax dafa respecté wul. li nga xam ne moom la war a respecté parce que ñun ay doomi aadama lañu mhm. mm, amul benn réew bi nga xam ne am na ay daw lakk yi nga xam ne mat na fanweeri at fekk amuñu benn papier loolu moo gën a garaaw mhm. Euh, ñu xam ne nag ñoom xëy na amuñu euh, envie wala xaw ma naka lañ koy waxee ci wolof xëy na bugguñu bugguñ ñoo toppatoo ndax euh, mënuñu dellu Mauritanie mënuñu nekk fii abadan rek te kenn duñu toppatoo mënuñu encore jël li nga xam ne mënutuñu ko mooy seen mission comme ni ñu amee mission toppatoo Sénégal yi noonu la ñu amee mission toppatoo ñu état Sénégal loolu mooy mooy mooy wargalam léegi nag bu dee mënatuñu ko nañ ko jéggal communauté euh, CEDEAO wala ñu jéggal ko Union africaine wala ñu jéggal ko communauté internationale fii yëpp mooy euh, euh, pays tous les peuples de Nations Unies. Mm-hmm. ñu ngi fii am nañu ay kuréel yi nga xam ne ñoom mun nañ ko toppatoo comme ñoom mënuñu si dara. mais ba fi mu ne nii dañu mel nu dañoo dañoo caabi fii ba nga xam ne waruñu wax waruñu def dara loolu nag loolu lool loolu moo nekkoon problème léegi HCR Abdourahmane Sy HCR ban bantaxawaay la am si si yéen si yéen fànn la leen di jàppale exactement HCR dafa am ay partenaires yu bari yi nga xam ne mhm. moom moo taxoon ñu mun ñu toppatoo léegi nag dem nañu ba ne euh, partenaires yi ñoom mënutuñ si mënutuñ si ñun dara moo waral ñu wàññi bourse xale yi mhm. ñu wàññi euh, bu dee yow juróomi euh, xale nga am ñu may la benn xale bi bourse pour mu mun a jàng hmm. kon yeneen ñeent yi yëpp dañu ne jaru sax ñuy dem école euh, boo feebaree boo demee doo mun a faju jéem hmm. nañu fii benn mutuelle bi nga xam ne ça n'a pas abouti euh, demul fen parce que dañoo dem ba nga xam ne ñu constate que li ñu doon fay moo ëpp euh, li sénégal Sénégalais di fay fii ci mutuelle de santé hmm. ñu xam ne loolu doxul ñu parce que ñun mënatuñu doom bu ne mille deux cent cinquante Euh, boo amee ay njaboot yu bari du mën a dem ñu tëj kon cela veut dire que santé bi waxatuñ si dara mais euh, ay euh, projet yu ndaw yi nga xam ne moom lañ doon dimbalee nit ñi pour seen activité généralice de de revenu mooy maanaam ñu mun a am ay taaba taaba yu ndaw pour ñu mun a dund au moins wala assurer seen location wala assurer seen dem ak dikk seen doom yi nga xam ne ñu ngi ci école yi mu nekk daal jafe-jafe bi nga xam ne ñun xamatuñu. Euh, ACR bi mu demee ba euh, ba doyal ci yëf yi daf ñoo woo ñun ñëpp. mu ne ñu bourse yi lépp dañuy wàññi ñi doon def formation professionnelle lépp la ñuy euh, donc fi ne nii daal ci ko général la. Mm-hmm. dañu bëgg nag. Mm-hmm. ACR ak partenaire am ak yooyu yëpp comme nii nii la demee ñun dinañ jëlal sañu bopp lépp li nga xam ne mm, mooy sañu. warugar lépp li nga xam ne mooy sañ gidd ak yelleef ah, pour que àdduna bi yëpp dégg ko fi mu ne nii c'est fini pare nañ ci moo tax ñu jóge Dakar ñëw fii Ndioum mm. pour mun a daje ak yeneen département yi yëpp Bakel ba euh, ba Ndioum mm. euh, kii nu mu tëddati ba euh, Dagana ba Dagana ñu ngi fii à Ndioum pour exactement ça pour que ñu génn si problème yooyu incha allah mm. léegi yéen pare ngeen juste une minute rek Abdourahmane si deux minutes mm-hmm. pare ngeen yéen pour delluwaat Mauritanie wala loolu bëggoo leen Mauritanie mm-hmm. dafa violé woon l'accord tripartite bi nga xam ne ñu doon permettre. Mhm. Euh, ñu mën a dellu sañu réew. ñoom ne vingt quatre mille yu bindoo yi commencé woon dem ñi nekk foofu euh, junni ak juróom-benn téeméer yi mooy mille six yi ñoom rek ñoo amaat seen papier. Mhm. mais amaatuñ seen suuf amaatuñu dara. Mhm. donc cela veut dire que euh, ñi si des yëpp les plus de seize mille et poussières yëpp ñoom ba léegi fi mu ne dañoo nekkaat ay réfugiés ci biir Mauritanie en même temps. comme violé accord tripartite bi. boole si encore déclaration mooy wane ne ko ñun ñi des fii ay Mauritaniens lañ non ay ay ay Sénégalais lañ. Mm-hmm. moo tax euh, affaire réfugié ñoom pare nañ si. pare nañ si donc cela veut dire comité comité international dégg na ko Sénégal dégg na ko ACR dégg na ko mais mënuñ jéem ay pexe euh, état Sénégal daf ñu bëgg a fii rek ñu nekk fii ba abadan mm-hmm. ñuy départ benn benn puisque du ñu du ñu faju mm-hmm. du ñu lekk du ñu naan du ñu am ay dëkkuwaay loolu nag moo jeex fii. loolu moo jeex fii dinañu. fiñ fiñ euh, toll nii Abdourahmane réfugié mauritanien yi si affaire 89 bi. actuellement ñaata ñoo fi des parce que nee nga ñu bëri faatu nañ jafe-jafe yeeg ñoom seen am na ñu dellu mais ñaata euh, euh, à peu près. ñoo ñi dellu woon 24000 la woon rek. waaw alors que ñun on était. presque cent vingt mille vingt mille yi ñoo demoon mm-hmm. Mali mm-hmm. moom lañu yoboon mm-hmm. les cent vingt mille la fii ñi nga xam ne dem nañu demoon nañu ba des quatorze mille quatorze mille réfugiés hmm. waxuma la nag aussi depuis deux mille huit ba léegi hmm. nit ñi ñi euh, euh, population bi mu ngi yokk hmm, donc cela veut dire ba léegi kon ñu ngi fi ñu ngi fi voilà état Sénégal xam na ko mënu si def ay jéego HCR xam na ko mënu si def ay jéego HCR bi ñu waxee day mel ñoom dañuy jàppale état du Sénégal ndax euh, ñi si gën a bari seeni seede c'est des ñoo fa nekk. Mhm. di di liggéey ak ay euh, quelques yeneen nationalité africaine mhm. mais euh, affaire bi daal euh, dafa jéggi dayo kenn mënul xam lan la dégg ngeen sañu plainte dernière plainte bi CEDEAO mhm. ba léegi ñu ngi koy jubluwuñ si daal pour que ñu mën a xam dégg bi exactement fan la war a féete ndax ñun ñu mën a recouvrer sañu droit le plus fondamental mooy le droit de vivre. Euh, euh, euh, juste une minute rek man maa ngi la doon dégg nga ne Sénégal donc respecté wu àq ak yelleefu réfugiés yi yéen da ngeen préféré waaw dem si yeneen dëkk daal comme yan dëkk par exemple dégguma ma ne benn jour maa ngi lay dégg ne da ngeen a préféré dem si yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo gën a respecté droit de réfugiés ma ne comme dëkk yan dëkk exactement dëkk yi dëkk yi bari nañu mm-hmm. dëkk yi bari mën na bari nañu ma lim Europe mu ngi fii Amérique mu ngi fii Australie mu ngi fii ak euh, yeneen réew africain encore ñu ngi fii hmm. bu dee ñoom dem nañu ba mënuñu ba mënatuñu gérer li si war mooy que ñu soumettre la question à la communauté internationale loolu laa doon wax hmm. comme ñoom ils sont pas capables de gérer ces gens là jusque là hmm. au lieu de les sacrifier euh, nañu dem ci li nga xam ne loolu mooy dëkk bi parce que charte yi Sénégal ak euh, mu méngoo ak texte international mooy bi nga xam ne euh, réew yi Nations Unies yëpp ñoo ko bokk. Mhm. dafa ne trois solutions la benn bi nga nekkaat fii nga nga mën a dund fii ci ay anam yu leer ñaareel bi nga dellu dellu bi tëj nañ ko ñetteel bi réinstallation dans un pays tiers léegi nag Sénégal loolu la mënul dégg. lan la mënuñu bàyyi ñun am nañ sañu àq kay nañu jox sañu àq rek loolu dong la laaj. waaye nekk fii rek euh, chaque chaque cinq jan chaque cinq janvier de l' année euh, jéego yu yu bëri la ñuy def pour jox leen ay koppoor pour que ñu mun a gérer seen réfugié bu dee nag ñu ngi continuer rek di dund ci loolu ay fonds di ñëw rek mënuñu gérer nañu soumettre mënuñu nañu soumettre question bi communauté internationale bi nga xam ne moom moo fi nekkal pour tous les pays des Nations Unies. voilà loolu mooy dëgg. merci beaucoup Abdourahmane Sy maa ngi lay remercier bu baax a baax ci euh, leeral yi ak disponibilité bi. Voilà. non par quoi. Mm. yow sama nit nga. c'est ma sœur. Mm. merci. merci Abdourahmane ñu koy remercier di leen remercier yéen euh, suñu auditeurs.